sanaatul i'raab yi jàng nañu rafa jàng nañu nasab eh, jàng nañu jar kon jasam moo def mu ne walil jasmi aji nekk la ñaal jasam alaamataani ñaari mandarga mu ne jasam ñaari mandarga la am mboolem waxi arab bam day daal baat buñ wax ne dañ koy jasam lañ caa def ndég jasam ga irabkat mm-hmm. bi da wax ne mooy màndargaam jasam gi buy mm-hmm. génn ñaari yëf yi le mm-hmm. ak sukkoonu sukkoon mask ak néeg dañ de baat def ko ca ñu ne mooy màndargaam jasam gi loolu mooy cosaan moo tax su ko irabkat waxee rek amut lay dara moo tax itam mu dalee wal xas bu ak xasam jasam baat Mm-hmm. dindi ca dara mais mm-hmm. li nga ci dindi nii mm-hmm. mooy mandargaam jasam bi loolu du cosaan moo tax mu mujjee ko bépp baat buñ jasam la ñoo tuddee mandargaam jasam benn muy sukkoon ko fekk ca cat la wala mu de xaraf bu fi ne woon ñi dindi ko asafara ko kenn ku nekk nag fu muy doyee mandargaam jasam dañuy jàng sukkoon ndax day bëgg a guddi mu ne faa ma sukkoonu daa sukkoon nga fa yëkkoonu dana mu nekk Mm-hmm. alamatan di mandarga mm-hmm. lil jasmi ñaal mm-hmm. fil fiali ci al mudaria jay mudaria asayinil axiri juraaj wet ji muj bu dee sukkoon mu ngee doyee mandargaam jasam ci mudaria mu xam ne sahihul axir la sahihul axir buñ ko waxee mooy baat boo xam ne lii mu jub waxuñ yaxsaa ak yardaa waaw mu jukki mm-hmm. waxuñ yaddomoo ak yar joo mm-hmm. yaa mu jukki mm-hmm. waxuñ lu mel ni yàqdi ak yar mii bat bi bu ci kenn ñetti arab yooyu mu jul rek dañ naan sayewul axir la soo koy jasam sukkoon nga koy jasamee yasmau sayewul axir la soo ko doon jasam danaan lam yasma yëkkoonu sayewul axir la soo ko doon jasam danaan lam yëkkun nga sukkoon deel bi yëlidu mm-hmm. sayiful axir la mm-hmm. soo ko doon jasam mm-hmm. da nga sukkoon daal bi yuuladu da yuulat lam yëlid walam yuulat walam yëkkun jàng ko ci alquran sayiful axir sukkoon lay jasame dégg nga baat boo xam ne mu jutti waaw mu jutti yaa mu jutti ak lu jamanatee mujj rek xamal ne bat bi de sayiwul axir la mm-hmm. sukkoon lañ koy jasamee mm-hmm. ñu jàng loolu mm-hmm. waaw ma sukkoon daa sukkoon nga fa yëkkoonu dana mu nekk alamatan di mandarga al jasmi ñaal jasam il fiali ci fial al mudaari a jey mudaari a sayil axir yaa jot jimul aywa yarab ko waaw babil majrur babil majrur ni ay kullu hada matlu kainu wa tawadin jisa alamatan mufdam wa qabla ma qabla dañ koy rabaa rabaa ni ko tàmbali rabaa ni ko tàmbali man hmm. nga rabaa alif alif ah, ah tas ni ak luñ ci yëgal lif lay rabaa luñ ci yëgal alif lay rabaa hmm. mooy noonu wattee nañ ko taneen boobu <coughs> noonu wattee nañ ko taneen taneen ci mufrad hmm. mooy tëkkoon badal la ñu naan. badal ci alaama. Hmm. alaama taal. Hmm. dañ koy rafaat. badal ci lañu rafaat dañ koy rafaat. man hmm. la wax lamb lamb lañ ko mën. waaw rafaat bi. Ah, alxasu ma alxasu xatim nañ ko azzakon. di xaati ci rafaat dañ koy rafaat. man la wax lamb lañ ko mën. léegi faaw nga sukkoon fa yëkkoon alaamatan lil jami fil fi'lil mudaari moom yàgg nga ko jàng léegi maa ne loolu yàgg nga ko jàng jarul jaaraat. asagir naati ñaareel la ci fi'al yi naat ci luñ jar dañ koy jar mandargaam jaram tas rek feeñ ci muy gi te mu daal alaxiri mudafun ilay la dañ koy jar mandargaam jaram tas rek feeñ ci muy gi li def moom yàgg nañ la koo déglu te mu ngi bëgg a xat ana keneen buñ jàngee ba